xaar bu leen juum walaay ko naka la day jamil moo nu doy ci diine jarde malik sa maam ba mootali sakala wooya mustafa si jarde malik maam jalo motali yal na yàlla fay la saydi jamil jamil jamil jamil سيدي جميل جل مالك باب جل مطلي جل يلا ويلا سيدي جميل سيدي جميل جل مالك ومام وموتلي جزاك الله يا مصطفى زي جل مالك مام جل مطلي يلا يلا ويلا سيدي جميل جل مالك سمام وتكلموا يا مصطفى بيشان يا الإمام جل مطلي يلا يلا بيلا سيد جميل سير القجر مالك تمام ومطلي تكلموا يا مصطفى جرد مالك مام جل مطلي يلا يلا خيلا سيد جميل مالك تمام waaw. Seydi Jamin defu fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw mani defu fi lu ñaaw Jamil defu lu ñaaw moom de xamul lu ñaaw Sëriñ Moustapha defu fi lu ñaaw dafa xamul lu ñaaw Jamil defu fi lu ñaaw Sëriñ Moustapha lu ñaaw mani def fi lu ñaaw Mustafa xamul lu ñaaw waaw waaw jënd Maalik sa maam nga mootali ca saaka la woo yaa Mustafa si jënd Maalik maam jëla mootali yàlla fay la Seydi Jalil jënd Maalik sa maam nga mootali ca saaka la يا متبادل يا مالك يا متلي يا يا فيلا سيد جميل من دشنا بشير بجيش الأخمدين ومالكين وإمامين دشنا بشير بجيش الأخمدين ومالكين وإمامين دشنا بشير بجيش الأخمدين ومالكين وإمامين nit du xudduwul dafa jara doyloo doy na mboolem gu sopp diine jamil jamil jamiloo ay waay jamiya muxtaar bi la mu la daal ay waay jamiya muxtaar لك وعي اي جمل يوم الخطاب يوم لك وعي كان الاخوي جميع مقدار بلا ملك وعي لموت صبر في الجنة ابن يرمي خين تدين أيوة المصطفى واو yenda bokk mu jooy may ngir bàyyi jamil bi sama na ndigalal xalifatu Malik dootu nu jooy may ngir may jamil bi waaye daw dootu nu jooy bay ngir bay jamil si waaw dootu nu jooy bay ngir bay jamil si wa alimun wa abidun wa shahidun may na ju xaliwatu mbay dootu nu jooy bay ngir bay jamil si wa alimun wa abidun وشاهد من نجم خليفة ميت وجاي بين واليسار بالقيلة وبالممدوح أقتلنا إخلاصا يا ربي والتوبة يوم هذاك باب عجيب جمعت الرياضين والنسرين والعطر وبالقلاس وبالممدوح أقتلنا إخلاصا يا ربي التوفيق وليزل بالله أبرأت كل جنان دابك الجنان على اللسان كذاب خاموس مغدر وبالقياس وبالممدوح اغتي لنا اخلاصا يا ربي والتوفيق وللزير يا مادي الخير والمختار من اجباي تزيد خيرا امين من شامل الله li ko indi woon moo di seet liggéey bi fan la toll liggéey bi nan la demee daan si continuer ba wax jot mu waxtaan léegi nag kii nga xam ni dëkk ku ci dugg ko dey tiital la si am ndax bépp nit buy départ di ñëw fii ñëwul ni maa ngay ñëw pour néegu yàlla bu sa ndomb ñëwul ni maa ngay ñëw si néegu yàlla bu si quartier Mbodj ñëwul ni maa ngay ñëw si néegu yàlla bi fi duudu mbay def def ni maa ngi dem ndomb kon titre boobu Sanjire ko moom moom mi nga xam nga ni du ñëw ba fii doon nañu kaa càkk ji ne ñu ne ko ma nga sa quartier kon sëriñ Sanjiri euh, chef de village nga ubbi imaam doomu imaam imaam bi nekk fi waaye doomu imaam ñu ni teew te mag ñoo wax ni bu imaam nekkul doomam nekk mi ngi mel ne imaam taw na rakkama nga ni ñëpp nga fi ni waaye ñu jox chef de village mu dalal gan yi sañ wi sànni say kaddu naam nañu wax allah ndari wax sëñ bi continuer nii waxtaan wi leeral nit ñi lu ko fi indi ñu ñaanante yàlla mu ñibbeeg jàmm bàyyi nu feeg jàmm fekk fi jàmm wacce fi jàmm alors bisimilah sëñ bi kay wax asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak sa sant kaddu yu ma jël nag kaddu santante rek la ndax fi si mbooloo mi kenn ku nekk war na wax alhamdulilah rabil alamin wan nañ sax wax ñaari yoon ba si ñett ndax eh, lii fi am bëggoon nañu ko bu yàgg-yàgg waaye yàlla mu ngi koy door dogal fan la ko yàlla dogale jàmbur mënoon a jóge si àll bi ñu def ko def ko si waaye suñu doom moo ko defar def si dëkk bi kon yàlla lii la doon xaar li doon xaare kon noo ngi sant yàlla bu baax a baax sëñ bi noo nga lay siyaare si dëkk bi yëpp ñu ngi lay siyaare dëkk bi nag ndombo ndombo sëriñ Babacar la ndax comme ni ko Fara wax léegi sama doom si laaj Malick bu mu ñëwee ndomb fii te toog def tey taysir bu tëj nañu bu taysir bàyyi yàgg la ñu ne ko sëriñ Babacar gane naa di kon ndombo ndomb sëriñ Babacar la sëriñ Babacar dem euh, dem bàyyi noog Mamadou Moustapha ndomb du ndomb Mouhamadou Moustapha kon ndomb bu sëriñ Moustapha demee njabootu sëriñ Moustapha lu nu yàlla séddee kon ñu ngi ni toog njëkk kon ndax kii ku ko xool xam ni ah ku xool xam te xam mës boo xoolee sëñ sëñ Abdoulaye xam ni kii sëriñ Moustapha la kon nag si ndomb yëpp ngi lay siyaare ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm yàlla na leen yàlla wàcc suñu kanam yàlla na ngeen nu muurloo nu muurloo leen lii ku mu doyul dara du doy ndax lii jàkk ji jàkk ju ñëpp bëggoon kenn ku nekk bëggoon na am doom ju defar lii kenn ku nekk bëggoon na ko bu doon sama saako sama doom moo ko defar waaye yàlla Doudou Mbodj mi la jaarale kon nu ngi ñaan yàlla Doudou Mbodj jàkk ji yàlla na yàlla tabaxal ay ay ay aj ajjana yu gën a kawe si ajjana yi ndomb yëpp kontaan nañu nga tabax jàkk ji pare delloo ko si ndoom mu ne kat jàkka jaa ngi nii pare naa pareegul sax waaye mën nañu commencé julli jàkka jaa ko seen loxo ndomb yëpp a daje waxtaan amul benn xëccoo lii wala lële wala lële kon nag lépp nga yàlla yàlla def jàmm si dëkk bi kon noo ngi sant sant noo ngi sant bu baax a baax li ñaanal sëriñ bi tànk yi nga fi ñëwee yàlla na yàlla delloo si jàmm ak ñi nga àndal te bu ngeen demee ngeen ngeen siyaaranu Mouhamadul Moustapha yàlla na yàlla yokk leeram ci taas ci barkeem asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu min asheytaani rajim bismillahi rahmani la hawla wala quwata illa billah aliyul asim ya hayyu ya qayyum ya sil jalali wal ikram allahuma ala sayidina muhammadin wa sallim asalaamaaleykum mbokk jullit ñu ngi leen di nuyu di leen baalu àq te di leen baal àq dellu di leen siyaara di leen ñaanal jàmm di leen wax dal leen ak jàmm e sant di ñaanal yàlla suñu sëriñ bi teew si fi di ko ñaanal gudd fan ak wér ak wérle yal na buur yàlla yàggal taxawaayam defal ko sutura àdduna ak alaxira ñu ngi koy tarbiya bu baax a baax di ko wax bismillah bismillah bismillah dalal ak jàmm e si ndigalu baay biraan nag laay waxe ndax sam papa beneen sama ñaari pàpp ñu ngi fi teew waroon taxawe taxawaay yooyu waaye dañu jël lépp jox ma ko ma leen koy sante muy Baye moor Baye Diadji ak Baye moor ñu ngi ni toog si jataay bi di ma dégg fa tabaarakallaahu maa ngi leen di ñaanal ñoome tamit cër bi ñu ma jox yal na leen ko yàlla delloo ndax man seen doom laa rek doye di seen kanam nekk ndaw ñu jël cër boobu yëpp teg jox ma ko kon nag ñoom ñoom ñoo ko waroon taxawee ah, ñu jël jox ma ko yal na bur yàlla delloo leen ko e, di ñaanal mbooloo mi yëpp nag di leen ñaanal bu baax a baax di wax dal leen jàmm e, di gërëm it duuru mbooy ñi nga xamante ni moo jëf-jëf ji waaye damay wa faral di wax ni kuy baax yàlla moo la gën a baax kuy baax rek yàlla moo la gën a baax lii mu def te yàlla tax yàlla daf koy fay bu mu mët sëkk ndax ko def jëf-jëf ju baax rek yàlla da lay fay jëf jooju ku jëf-jëf safaaneet yàlla la safaan bi rek kon nag kenn ku ci mënt doon buy jëf na jëf te yàlla tax te li muy jëf mu jëfal muy ragal yàlla jëf ju nekk na ànd ak ragal yàlla parce que loo jëf jëfu ngistal ngir bëtu nit ñi amul njariñ amul benn njariñ fii la yem fii nga jëf ñu wax ko wala ñu gërëm la sant la si ni yàlla yàlla taxul fii la yem du àgg de kon nag képp kuy jëf na jëf te yàlla tax bu ko defee loo dem boo demee foofu fekk fa li nga fa defoon yëpp ñu fulandi ko boo defee benn fukk lañ lay fay nga def fukk ñu fay la téeméer boo defee téeméer ñu fay la junne balu soob yàlla yàlla moo amee ay mbiram te nu mu neex la koy fayee kon nag fa tabaarakallaahu jëf ji nga jëf yal na la ko yàlla fay fulandeel la ko di la ko fulal di la ko fulal di la fulal balu ko soob fa tabaarakallaahu di sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu fi teew ñëpp yàlla na buur yàlla defal ci dëkk bi jàmm def yàlla def mu tàppe xol yëpp ba xol yëpp nekk benn. dañ ko ñi fi teew ñëpp tey bu ndomba kese wala mboojeenu kese bu dee ndomba la doon ñëpp a ngi fi teew ndax imam yaa ngi fi teew délégué de quartier wala chef de bi bu dee jàmm gën saalika na ko imam baa ngi toog bu dee gàttu ma laa imam baa ngi toog bu dee ndomba imam baa ngi toog chef baa ngi toog. ak yeneen autorités yi nga xam ne ñu ngi si biir nit ñuy toog ak yeneen nit ñu yàlla baaxal ñu ñëw si biir yi fi kon mbooloo mi yëpp tey teew nañu fi waxatuñu waxi namb du mi fi teew yàlla miy defar te mu defar mu defaru yéen ñu yàlla defaral parce que bu dee ku mel ne man mën naa gërëm duur sama dooma mais boo fekkee lu yàgg ñii nee nañu départ nañu si Alaaji Malick sama papa dafa ne moom mi ngi judd mille huit cent quatre-vingt-huit Alaaji Malik mi ngi judd mille huit cent quatre-vingt-dix-huit la nekk kon ne xam na si moom lu bare si place bii bu fi ñëw kenn ku ne xam ne ne borom xam-xam fu làqu lay wuti waaye wutiwul xam-xam wane na ne fii képp ku la ne Alaaji Malik heure bii julli fekk na ko fa mënul wax loolu boo xëyee fu ma jullee xam na ko si kër gu mu nekkoon bu demee ba dix heures mu soog a génn nekk fii ba tisbaar di bëgg a jot mu door a génn bu demee def lu ma def def lu ma def dama ba julli takkusaan ba pare doo ko dellu si fii wax naa ko barki démb kon nag jar na sant yàlla li fi def yëpp waxtu fekk gu fi woon mu julli fi nag waaye fi la nekkoon di fi jaamu yàlla bi mu fi ñëwee di jaamu yàlla fekkoon na fi sama papa nee na fekkoon na fi waaye yëgunu boobu nit nag boo ko tëralee benn yoon ni ko fii la ñuy defee nii la ñuy defee tey fii wala loolu booba mag ñi am na la nga daañu ko gis waaye duñu ko xàmme booba nee na fekk na fi Mor Sini nga xam ne sa yooyu jamono garab bari na lëndëm bari na sama papa wax de nit dina réer si àll bi boo taxawee sa tunu ki daa seen ndomb du leer lool waaye boo ni cëpp boo doxee ba ak si juma jàkk ji doo gis am na doo man ràññale bàmmeelu kana bi ñu demee ba mu yàgg nag ñu ne kon nag bàmmeel bii bàmmeelu Mor Sini Kana ñu ne kon nag kii nitu yàlla la kon nag El Hadj Malick daf den waxul waaye kii mooku ko fi ñu nekk fi ak soxna su baax sa nga xam ne fii seen ay sëtama ngi fi lay nekk sunu papa ñoom ànd ak moom ndax boobu góor gi am na fukki at ak juróom-ñett wala fukki at ñaar waaw ñu ànd ak moom ànd ak moom bokk lu xale bi wax léegi si 1898 la fi góor gi jógee. dem bàyyi noog dëkk bi ak ñaanam waaye teewul comme ni ñu waxee kii sa maam ñun ñu fekkoon mag ñi Cheikh Al Khalifa sédd ko waalo mu ñëw fii ci ndombo wan di ndombo gi nga xam ne ndombo Alaaji Maalik Fall Alaaji Maalik la fi laa dëkk ànd ak ndombo fu ma wër ci biir bi wala fu ma wër ci biir département bi bu mujjewul gaa yi ndombo lay mujj kon ñu fi nekk ñëpp ñii ñëpp war na ko xam sama mag ji taw na ko fi la nekk ndooma di ko béyal tool ndooma di ko béyal tool bay tabaxal ko kër fii tey Aliou Mboy Wade nekk kenn ku nekk lu ñuy xale xale xale yéen a ngi su mu ne tabaxal sëñ Abdou euh, Abdou ku ñu ko tuddi ka maamam maamam fii la ñu ko tabaxal kër mu ne fi nekk fi nekk fi nekk fi ba jamono metti mu door dellu woon ndooma yëpp nu toog a en 54 ndax booba école bi tabax nañu ko bu ñuy waxtaanee heure bi keroog ñëpp ngi toog fii. mun leen def ngeen lu rëy def ngeen lu màgg topp ngeen yàlla gëm ngeen yàlla nett li ngeen def ngeen li nga xam ne lii li Alaaji Malik bëggoon bëggoon ngeen ay doomam bëgg ngeen ay sëtam lii ngeen def nag tabaarakalla jamono bi neexul metti na waaye fii waxtu ngeen gisee nitu yàlla gu fi ñëw teg leen ko fi kii moo la ko jox moo la ko ñun ñëpp wallahi kar ngi ni toog beneen bi moo di ñett ngi nii nga xam ne yii ku ko xama ku ko xamal doo moo ko fi njëkk a def ndomboo fi jókki-jókki fii si département Dagana dem Tiwaawan jël oto chari Seexal Xalifa chari Seexal Xalifa ndomboo ko fi jëkk a def di ko def di ko def ba 57 man mii kere ba ma demee 57 ñu fekk góor gi yaramam tàng ñu won ni kii kat du mën gis ñëpp waaye mag ñi nañ leen tànn waaye kon ñun yàlla dimbali nañu du ñu xaw di gis wane nañu ko noo ngi sunu suñu bopp. ndax xam ne ñun ñii kat mbay la ñu tudde ñu nekk moom comme li ma lay wax léegi ba mu ñaanal ñëpp ñu ñibbisi nu dem cinquante huit nu dem siyaare ji sëñ Cheikh moom recevoir nu doon dellu si cinquante neuf sëñ Cheikh fekk ñëw na fi cinquante huit en ndomb cinquante neuf ndomb yëpp dem Dakar ndomb fi jëkk jóge fii encore romb Tiwaawan demati Dakar fekk daa jaar nañu Tiwaawan nag siyaare ñetti xam yu fa nekk siyaare Alaaji Malick ndax moo ñoom fi njëkk a jógee la ma ni dem 59 Dakar boobu ñu ngi dëkk rue euh, rue 8 angle rue 15 fa la ñu ba yónni ko foofu bu ñëwee sëriñ bi lan la wax noo ngi taxaw def ngeen lu leen war jaar ngeen Tiwaawan fekk fa sama maam jaar ngeen Tiwaawan fekk fa sama pap jaar ngeen Tiwaawan fekk fa sama papa Mansoor doy na bu ngeen fa yemee baax na force wu ma kenn ngeen di gaañ seen dëpp ñëw fii. ñu nekk na nag nga dëgg mooy jëmm dafa baax fekk nañu fa Alaaji Malick dem li say xal xalifa fekk nañu fa say Mansoor kon nag il yi ñëw jox la suñu jëmm loolu rek la ñu mu kontaan si topp ñu koy continuer di ko continuer nag di ko continuer bay bu ñu fay jóge lii nag nga def yal na yàlla may la wér doon si xam lu bare ndax sa rak wala sa mag fii Amada kenn jiitu woo ko fi mu ñaan si yàlla ni fii ma nekk. yal na fi yàlla def lu baax nu nangu lool mu dem maam lay ñëw fi ñaan si yàlla ni fii li fi sa maam daan def yal na gën yokk ba nit ñi gën fi bare ñu dem tuuti Moustapha bu sëñ Mansour ñëw fii man yëpp dama leen ànd ñoom ñëw fii ñaan si yàlla ni fii sa maam taxawoon yàlla bu wéet ñu dem tuuti ah maal maam Alpha bari ki démb li fi jóge maam Alpha ni fii maa ndak moom góor gii waxtu wi ñëw fi lay ñëw toog dara ñëw fi mu lal sa yàlla wala mu fàkk rek tëdd ni fii yàlla na fi yàlla def dara te yàlla dana fi def dara lii moo de fii nu toog jamono Alaaji Malick bu Sëñ Mansoor ñëw fii si commune rurale bi am bëgg-bëgg ñu def ko ba nag mu ne ma lu des nag moo di ma ñëw fii si arrondissement bii bëgg fii ba noppi ne fu maam fi nekkoon bay def fa lu kon danaa fa dem lu ñëw fii fii lañ ko doon eh, dugal musaare fi ñaan fa yàlla ni yàlla ñu si Malick si nga siggindiwaale ku baax ku mel ne yow ubul làmb ji comme ni nga ko ubbee waaye xaw na ubbi làmb ji soxnaa si duñ dem mu wax nu nu muy formé mbooloo maame ñu wan ni ko mbooloo mi balaa man formé da ngaa ñëw ba dëkk ba mu ñëw dëkk bi yàlla dimbali si gàttal rek mu ñëw dëkk bi dëkk bi ëpp lii yëpp xolam sedd lool mu dugg fii ñaan fi Mohamed ay ni ay càmmiñam ñaan dana ko ñaan bi yàlla dana fi doon barke yàlla miy defar nag fab ñaanam ak ñaanu yëpp dëpp ko si biir ñaan ndax du mu baax baax baax su amul woon ñaanu sëriñ mën na dem lool yaay ak bàyyi daay ñaan mais dafa am na fa nga wékku yàlla mi la jubaleeg duudu bu dul seet lu baax wan ni lii kat su ma ko jëfee jëfalu ma ko mbóojeen jëfalu ma ko ndombo jëfalu ma ko sama baay dama ko jëf rek pour département bi ndax néegu yàlla fu mu ne nun ñu nekk fii ci quartier bi wala ñu fi nekk daa gis ko jógee Dagana wala Njànge wala feneen wala Matam ba Podor ñëw dugg ci néegu yàlla ci place bii nga xam ne du ñëw place Alaaji Maalik nga dugg fi kon nag defaloo ko ndombo defaloo ko mbóojeen defaloo ko kenn àddina yëpp la ko defal jërëjëf mbooj yenn yàlla may la wér na ngeen baal àq ne bu doon suñu sago ñi fi teew ñëpp jël parole mu di imaam yi nga xam ne jóge nañu ndombal la ba di imaam yi nga xam ne jóge nañu jàmm gën di imaam yi nga xam ne jóge nañu gàdd ga ñu bàyyi sëriñ bi wala ala yi ndari defal lu mu si sànni bu si ñu bàyyi sëriñ bi yeggale nag li nga xam ne lii sàmm bi ñu doon na ko jàmm léegi fa tabaarakalla ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp jàmm allah yi ne asalaamaaleykum mbokk yi ne gannaaw bu ñu sant yàlla julli sant yàlla yàlla Muhammad nee kenn ku nekk ñu ngi ko nuyu si turam ak santam nee ñu ngi wax alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah nee ndax tey jii mu ne mbir mii tey ñu am ñu ubbi néegu yàlla bi sawe bi jàkk ji ne yàlla moo leen may ñu fekke ko ne am na ñu nga xam ni ñu bare wala ñëpp yéene woon nañu fekke ko ne gannaaw loolu ne ñu ngi sant sëriñ bi ne Abdou Aziz mi teew ñu koy sant bu Jamil ne ñu ngi sant Amadou Mbodj bii toog ne am na ñu nga xam ne du waxee Duudu Mbóoj dañuy wax Amadou Mbóoj bu kar bi Abou Ablaye Mbóoj ne Amadou Mbóoj la tudde ne ñu ngi koy ñaanal yàlla ne bu ñu ko ñaanalee yàlla ne ñu ngi koy ñaanal gudde fan ak nag warsagu bu bare ne lii muy def ne yal na yàlla gën saxal taxawaayam ne li mu def ne ñu bare na ñu ko bëggoon nañu ko ne ñu bare yéene woon nañu ko bu ñu ko yéeneet moom si boppam moo ko yeggale ne yeggali bu mu ko yeggaleet ne rafet na ne def na ko mu rafet ne ni mu xamee moom si boppam lu ko Doudou Mbaye defaree ne fee mu nekk si Dakar am na ñaari jàkk ya nga xam ni moo ko taxawee ne benn bi ma nga nekk Kër Massar ne benn bi ma nga nekk fu mu njëkkoon dëkk euh, ne bu ma defee troisième ñi ñi teelu jàkka ji ne jàkka ji jàkkay Alaaji Malick la ko tuddee ne Alaaji Malick nag mais Alaaji Malick borom tur bu mag yi moom la ñu ko tuddee ndax Alaaji Malick ne borom xam-xam yëpp xam nañu ni Alaaji Maalik ku fees dell la ne yal na yàlla yokk leeram ñu taal ñu si barkeem ne gana loolu bu ñu santee yàlla julli si yent yàlla Muhammad ne lii nga xam ne sunu Duudu Mbooj moo ko taxawee Amadou Mbooj bokk nee ni mu ko taxawee rafet na trop nee yal na ko yàlla yeggale ak jàmm nee li si manqué woon yal na ko yàlla yeggale nee jàkk nag noonu la mel nee kenn ku ne dafay def ci loxoom nee moo ko def mais kenn ku si nekk na si def loxoom ndax nga barkeelu ci ndax nee barkeelu bi. dërëm nee dërëm sax boo ko defee baax na nee bu yàggee sa rek di xaalis nee jàkka nee mag ñi ñoo ko daan ñu ngi koy def nee mag ñi mën nañu ko def nee bu ko ñëpp defee kon na ko naan ci tuyaaba moo gën a baax nee tuyaaba bu gën a yaatu moo tax ñu koy def ñëpp laal ci nee gannaaw nag bu ñu sentee yàlla. nee nii Doudou Mbodj def Amadou Mbodj nee yéen ñëpp la yeggale mu di ndomb Sanjiri di ndomb àllarba di ndomb eh, eh, jàmmagën di ndomb Matamulana eh, nee bu fekkee bëgg na wax rek ni mu rek waalo gépp rek la ko defal rek. jàkk ji mu tabax nee jàkk ji mu tabax ñëpp si kontaan te ñëpp si kontaan te ñëpp seen kontaan te yëpp nag te bu si ñëpp kontaanee te bu si ñëpp kontaanee buñ si jullee buñ si jullee lañ si julli nee yal na ko buur yàlla nangu nee yàlla ci boppam mooy buur yàlla ku fi toog moo la fi wocc ku toog ci place ku toog ci place yàlla la fa teg yàlla la fa teg ne képp nga xam ne kii toog na fi képp ku ñu fi teg képp ku fi nekk ne yàlla na ne yàlla dimbale dimbale mboolem eh, eh, ñëpp ne mi ngi wax ci turu ñëpp nag ne képp ku ñëw fii ak ki fi ñëwul. ak ku fi xalaat. ak ku xalaat. ñëpp yéen yàlla defal leen barke. nee yéen ñëpp yéen na yàlla defal leen barke. nee su ñu defee barke. ànd ak wér. ànd ak wér. ànd ak wér cëng. ànd ak dëgër bu baax. ànd ak dëgër bu baax. ànd ak faju aajo. yàlla faj seen ànd ak la ngeen ngeen am loo faj seen aajo. te waxoon naa ko keroog. nee waxoon na ko keroog. si gàmmu gi. si gàmmu gi. ni ko eh, xéewal bi Eh, ne mu waxoon na ko ni xéewal bi nga xam Alaaji Maalik wàcc na ko fii si dëkk bi Cheikh Al Khalifa eh, sëñ Moustapha ak njaboot gi yëpp rek ñëw nañu ne yéen na ko yàlla def lu bare bare jërëjëf Mbodj alhamdulilah rabil alamina mbooloo mi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Abdul Aziz si bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si radiyallahu taala anhu bu Cheikh Seydi Aboubacar si bu Seydil Haaji Malick ne asalaamu aleykum wa wa barakaatuhu. sëriñ bi ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara. di leen masawu coono di leen balu xaq. ñu ngi leen di ndokkeel ci xew-xew bi ñu génn barka démb di leen ndokkeel tam ci weeru koor gi ñu ngi ñaan yàlla lépp luñ fi jaamu yàlla na ko yàlla nangu ne ñu ngi leen di jaale suñu góor gu tedd gi fi jóge bërka démboo njaay di sëriñ Mansour di boroom daara yi yàlla dogal mu jiit leen teeg doomam ja di soxna asi wàllu fondation Mame Fawade Wellé bi moo ko yoroon moom bi xew-xew bi am ma nga ko fekk Maroc ne soxna soxna umu jigéenam la téléphoné mu ne ah ñun kat ñoo ngi nii di waaj jëm fële ci Tiwaawan ne ko lan moo xew mu ne ko soxnaa asi yàlla nag kenn du xëccoog moom tabaarakallaahu li daloon maamam sayidil xaaji malik radiallahu anhu dafa toog ci daara ji di jàngale ci mbetteel ñu fekk ka fa ni ko sa doom fatimata si na àdduna ci mbetteel si di xaaj may ni e ba yàgg mu ni lan mooy sama yoon ci génn àdduna fatimata ba ma ko yàlla jox tàgguwuma kon su ko yàllay jël duma tàggu mu delluwaat ci bayitam ba nekk ci téeréem ba mu taalifi woon fii mooy muy waradini bil gada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu yallahu waradini yal na gërëm loo ma yow yàlla bil gada lépp loo dogal ci man rabbi yow sama borom mu yal na nga ma muñ loo ala balaika say balaa ba ma ko tegee yal waxu ko nekk wala ma ko teg soo may yenee yenn nattu yàlla nag ma téeñal teeñu muñ sëriñ Babacar ñëw moom joggati ko naka Sidi Ahmed di waxee moom wax ni rabbi xadayta fa raditu bil gada taxkumu ma tacha ndax fa xukmuko ma ba atte lu la soob rek loo dogal rek Babacar d'accord na ñoom itam nag loolu moo leen dal fa tabarakallahu ne ñu ngi leen di ndokkeel tam ci xew-xew bii ñu dajale fii tey ci palaas bi nga xam ni fi la Seydil Haaji Malik radiallahu taala anhu taalife Taysir ne ñu fekk ko fi ñu wax ko ni ko a ah, soxna sa kat yàlla may na ko doom bu góor muy Cheikh Sidi Aboubacar Sy radiallahu taala anhu nee na tàndarma ji fi nekkoon bu demee ba ruus ne pour mandargaal place bi ñu def ko néegu yàlla yaakaar naa ni loolu jëf ju rëy la ne fële ci boru tubaab jalaaw dafa am benn jamono mu am benn place boo xam ne Cheikh Omar Fuuti radiyallahu anhu moo fa jaaroon daan fa julli mu dem fa moom nag benn vacance di yendu ca place ba mu nisar moom mii ci xolam ni place bi yal na yàlla def mu nekk jàkk moo paate njoon xamatulaale def nañ ci ay jéego waaye ne gannaaw gi nag papam xamal ko ni ko ne ko comme Cheikh Omar la buñ leen jiitu ci dara ñoom suñu ay sëriñ lañu nañ leen bàyyi rek xëy na jamono dana ko indi seen xel dem ci loolu ñu defaraat place bi waaye nag bi sëriñ Mansour toogee la dem foofu woolu nag Madani waxtaan ci ak moom mu wax ko ne ko fii dama ko bëgg a def jàkk mu ne ah yow kat si yaay suñu mag yaay suñu lépp loo décidé rek d'accord nañu ca loola a ah, léegi tabaarakallaahu place ba defar nañ ko ba ñépp ñu nga fay julli ne jàkkay maam Malick Sall ba nekk ca Louga cheikh seydi mouhamadil moustapha radiallahu taala anu dafa toog ba benn jamono mu ne foog mu defaraat ko ne xel xalaatul mu toj ko nag ndax ñoom lu mag ñi def rek dañu koy dëgëral waaye duñ ci dindi benn birig ne mu waxtaan ceeg nag taalibe yi ku nekk nag a ah, daal di joxe nag sas tuut ñu commencé ko defar ne El Hadji Jéeli Mbay yal na ko yàlla yërëm ba mu yëgee xew-xew bi mu yeble ci Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha radiyallahu anhu mu ne ko yow kóllëre gi doxoon diggante sama maam Malick Sall ak sama baay Amat Saxiir Mbay nga yëkkati lu mel nii te man jéeli yëguma ko ni ko lenn daal laa lay ñaan na ñépp génne seen loxo ci liggéey bi man danaa ko tabax ne góor gi ni kaa ëpp naa def kat bàyyil ku nekk def ci as tuutam su ko defee barke bi law ci ñépp loolu la ñu def ba mu paree mu yebal nag suñu maam xaaj Abdul Aziz radiyallahu anhu moom moo ubbi ji woon jàkk ja ne duudu nag dañu toog jamono wala boog Amadou comme ni ko góor gi waxe ne mu seet si ko mu ne ko fële ci Kër Massar dama la fa bëgg a tabax benn jumaa tudde ko sa papa Cheikh Seydi Mouhamadil Moustapha radiyallahu anhu mu ne ka néegu yàlla rek nañu ko bàyyi ci tur boobu mu ne ko man daal sama niser mooy jàkk ja ma tudde ko Cheikh Seydi Mouhamadil Moustapha radiyallahu anhu mu ne ko ay ca bokk ne ñu dem def fa ñaan dafa nab nabi ba mu sotti ah yàlla dogal nag ñu daal di koy euh, inauguré ba ñeent fa tabaarakallahu ñu nga fay jullee ñu toogati jamono mu seet siwaat ko ni ko man kat ah dama am tey ñaari projet benn bi benn jumaa la bu mu war a tabax fële ca Kër Masaar ba tey boobu nag ma bëgg ko tudde Cheikh Sidi Aboubacar si radiyallahu taala anhu mu ne ko beneen bi nag palaasu daqaar ga nga xam ne sa maam ba muy taalif Taysir foofa la toogoon daqaar ga mu ne ko xas nañ ko ba mu jeex takk léegi palaas boobu laa bëgg a tabax def ko mu nekk jàkk ñu ñëw fi gàmmu yaakaar naa ni 2012 la ba ñu paree ca gàmmu ko ca ëllëg sa ñu ne ah kon boog nañu dem boog ñu def pose première pierre bi waaye booba sëriñ Mansour mi ngi tëdd ci néeg bi nelaw bëgguñ ñu ko déranger ba ñu taaxirloo ba booru dix heures jëm dix heures et demi mu daal di woo Sidi Ahmed ak man mii ñu ànd ñëw fii nag daal di def nag pose première pierre bi moom mii nag mu jàng fi xuruf Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu loolu ci la ñu nekkoon di ca nab na bi ba yàlla indi lii tey ñu ngi koy sant duudu nag bu baax a baax ndax lii mu def dafa am jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn jigéen ak itam nag euh, mu ànd ak boroom këram yàlla nattoo leen ñàkk mu ne ko da dem seeti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga ne ko na ñaan ci boromam ndax yàlla dotti ay xéewalam ci ñun ne ba mu demee ah, yonent bi ne ko ah, ñun de dañuy lu rek waaye yàlla mooy dogal mën naa la ñaanal léegi yàlla dotti xéewalam léegi ci yow bu ko neexee it dem ba ca kanam mu daal di koy dakkal mën nañu ñaan léegi yàlla xaar ba mu soob ko mu dotti xéewalam ci yow xëy na nga màggate loolu nee nee xëy na nga màggate loolu ko yonent wax nag mu ne kon yàlla na yàlla xaar ba ca kanam mu doog a dotti xéewalam ci ñun mu dellu ca kër ga daal di gis soxna si mu ne ko gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko waaw gis naa ko ne ko waaw lan nga def nag ah, mu nekk man kat dafa am ñaari proposition yu mu ma wax waaye man daal deuxième ba moom laa tànn xaar ba ca kanam daal yàlla dotti xéewalam ci ñun ñu màggate loolu moo gën mu ñu koy jox léegi dem ba ca kanam wërsëg wiy dakk mu nekk nee na soxna si ne ka ah, najaay def nga musiba de di nga delluwaat de boo delloo booy ñaan na nga fas ni yal na yàlla dotti xéewalam jooni jooni nee mu dem nag yonent bi daal di ree ni ko xanaa da nga waxtaan ak sa njegenaay mu ne ko waawaaw yonent bi ñaanal ko sallallahu alayhi wa sallam dem tuuti rek yàlla dotti xéewalam ci moom mu dem ca marché ba jënd ñaari piisam yu rafet ñëw ni soxna si jabb benn bi soxna si ne ko lii nag mu ne ko yàllaa dikk mu ne ko ba yàlla dikkee nag mu ne ko ma xottil la xottil sama bopp mu ne ko nag yaay juum nga de bii nga ne yaa ko moom sa way jur bu góor moo ko moom bii nga ne maa ko moom sa way jur bu jigéen moo ko moom demal nga jox leen ko bu yàlla dikkatee nag nga doog a xottil sa bopp xottil ma ñu dëkke loolu rek ne ba jamono yàlla baaxe ko lu mu tabaxe mu ni léegi nag soxna si dama bëgg daal jublu nag ci ñu am suñu makkaanu bopp mu ne ko nijaay loolu yàkkamtiwul yàlla mi ngay ñaan muy dotti xéewalam boobu ba léegi la suturaal. di la suturaal. balaa ngay tabax sa kër kay. tabaxal ko benn pantere bu ko nit ñiy jaamu. ñu def loolu. ne suñu borom yabal sayyidina jibril ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ni ko am na ku ñëwoon diis la boppam. mi ngi waxtaan ak njeganaayam. fileeg mi ngi jëfe noonu ñu ko waxe war wërsëg bii ma ko wërsëgale dootul dakk ilal abad mu mel na loolu la duudu miy def mënoon na ni mën naa tabax kër fii wala ma tabax ko feneen wala boog ay étages yu bare bare yu kawe ma di ko luye am li ci tuut di def sama poche waaye yàlla na xiirtal ko dërëm bu mu am rek ni jàkk loolu cër bu rëy la dafa mel na mag ñi dañ ko déey yal nay muuram nag mu ànd ak man mii nag di ab taalibeem ak sëriñ Dut Fall ak nag sumaare mi nga xam ne mbooleem yi fi xew yépp ci moom la ko yàlla jaarale mu war ko wan ñi ñëwul woon te bëgg ñëw ak ma njaay di doomu góor gi Moussa Njaay bu yaraax di ko baax ñëw nag teew si fii ci xew bii nee na keroog ca bi ñu tegee premier pierre bi mu dem ba mu xaw kawe nag dañu dem seeti Sëriñ suur keroog la yàlla dogal seen mujj gise ne naka mu ñëw rek mu daal di ne benn xale eh ñoddil ma curaa boobu jox ma kurus googu ci nekk ñu jox ko ko mu gàll ko ci loos bi daal di ko kurus gii sama doom ji moom ma ko may ni ah na nga def ndànk nag six cent mille la kurus gi jar lépp ci mbaaxam ñu wax ko tànk yi leen yëkkati ne ko place ba nga xam ne sa maam Sidi Xaaji Maalik foofu la taalifi woon tey ziir dafa am benn doomu ndombo bu baax bu ñuy wax duut ndooy duut mbóoj moo amoon xalaatu defar place booba def ko jàkk mu nees kay kooku de defalu ko boppam ñun ñi la ko defal fekk boobu mi ngi ànd ak góor gi ndëri ak ma dikke ñu dem seeti góor gi ndeysaan mu ne ko ndax xam nga ban bayit la sa maam mujj taalif ci Taysir mu ne ko ah pap man de loolu xaw ma ko mu ne ko mooy tilka al amaanatu takfi man takunu lahu muballiqan yaa manul isaala yallaahu mu ne ko ndax xam nga lan mooy sababu mu taalif bayit boobu mu ni dafa gis aado olof rek suñu demee ci armeel yi ñaanal néew ku nekk day tibb ci suuf si ñaan ci xëpp ko ci kaw bàmmeel bi mu ne waaye lii lan la ñu dañuy ñaanal néew mu ne tilkal amaanatu nekkal ca sigi coor sa néew nekk biir Dakar sa ñaan nga jaarle ko suñu borom daf ciy jot الأمانة تكفي من تكون له مبلغا يا من الإيصال يا الله موضن تلك الأمانة تكفي في من تكون له مبلغا يا منن إذا لي الله تبارك الله sëriñ bi nee na taysir ne gisul dara lu ko gën a kawe ci wàllu tawxid ne waxul sax turu yàlla yi nekk ci biir waaye sayidil xaaji malik radiallahu anhu ne xaqiqatul muhammadiya na taysiir bopp bi yëpp jawharatul kamal la salli salaatan wa tasliman ala xamarin min nuurihi xuliqa al akwaanu yallaahu law lam yalux fi fadaa'il kawni tal'atuhu tabqa al bariyatu fi dalmaahi yallaahu nuurun min annuuri qad awdaxtuhu xikaman tafiidu faydan ala al axlaaqi yallaahu ba àgg ci xaqiiqatul kawni aynu zaati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 nee rax ca dolli seexul xaaji maali radiallahu anhu nee rabbante koog benn salaatul fatihi bu doy waar nee salaatul fatihi yàlla dafa ci tagg yonente bi ci may jawharatul kamal daf ci tagg ci leer moo tax bi jawharatul kamal doo ci gis baatu Muhammad ndax ci leer la ko suñu borom tagge te leer googu mu ko tagge leeru boppam la moom yàlla day junje rek nee na lépp rek jëmmi sayyiduna Muhammad la waaye baatu Muhammad doo ko gis ci biir ne salaatul faatihi nag daf ko tagg ci may waaye comme dafay tënk. waaye ne comme dafay tënk. nee na am na maratib yu bare. bu yonente bi bu yonente bi. génnul génnul. dafa diig ci biir. waaye Cheikh El Hadj Malick ci xereñam. waaye Cheikh El Hadj Malick nag moom ci xereñam. muy muy bastu kii bi rek. ci la def xuruufam. am na yu bari yu mu def am na salaatul faatihi bari yu mu def am na benn nag mi ngi ci biir Taysir alfaatihi almuxlaqil xaatimi ma sabaqal musra almukallami xayru alxalqi yallaahu annaasir alxaqi bilxaqi jali wa ila siraatika almustaqimi alhaadi yallaahu summa ala al aali xaqa qadrihi xadaran miqdaarihi indakal azimu yallaahu ne salaatul fatih bu complété noonu kenn ma su ko gis ne ba mu ne alfatih almuxlaqil xaatimi ma sabaqal musra nee na mooy rañaan nga mukallama mooy jataay baag suñu boroom lañ fa wax ñoom ñaar te lu bare ñu tënk nga nag ci amana rasulu ak ci ni ñuy taaya <laughs> ne mu ne ak lan xayril xalq mooy ngën ji mbindeef lool la ñu sayidil xaaji malik radiallahu taala anhu baaxe mu ni déet na waay mu jël nag turi yàlla yépp nag rabb ka nag ci biir moo tax tey ziir fala budda min shakwa kenn du ko ñaan ci aajo bu dul faju moo tax mag ñi dañ ci fiiroon moo tax bi ko xale yëkkate nag ne xaw na indi coow ci réew mi mag ñi dañ ci fiir ndax dañu xam li ci biir ne tey siir kenn waru ko jàng te ànduloog njàpp loolu daal la ñu sayidil xaaji malik radiallahu anhu baaxe jóge fa nag def xurufu salaatul fatih romb benn dafa am benn góor gu baax gu ñu wax góor gi abdou karim li mu jox ko ko nag ni ko nekk ko yëral dajeeg nag Cheikh Saliou Bakar Si radiallahu anhu ni ah, man de am na benn tawassul bu ma def ci yonent bi jox ko sa baay Abdou Karim xanaa ah, nga dem mu jox la ko nga yër ko ba xam ndax Cheikh ndax Cheikh Al Khalifa li ko Sidi Xaaj Maay di jur jur nee na lépp lu mu liggéey nag moom la ko jox mu topp ko nag lu mu koy def nee daf koy commenté nag nee mu ñëw ci góor Abdou Karim nag waxtu yoor yoor mu ne ko daal ne góor gi daal xaw a fiir ci ceeb ni ah mu ñëw ma rek ba woor tisbaar góor gi daal dee dégg ndigal lool daal di dellu ne gannaaw tisbaar mu ñëw ne góor gi ne ka ah, mu tee ngay faf dem ba tàkkusaan ne Seydi Abubakar daal dee dégg ndigal daal di dem dellu tàkkusaan mu ne ko may mu ba fekk timis mu ñëw ba timis jot julli ba pare daal di ñëw góor gi ne ko may ma ba ñu julligee ne Sëriñ Abubakar dafa julligee xëcc buntam tëj ba fajar gay xotti mu ñëw fëgg ko an ne ko am boole ci bii nee na xurufu Seex Alxaaji Malik ak bu Sëriñ Babacar benn guddi la ñu magante ba mu ko yëgee ci guddi gi la taalif bosam te bosam sute na bu Seydi Xaaji Malick ñaari bayit nee na Seydi Xaaji Malick ci miimu azim bi la yam moom nag dafa ñëw moom ba ci miimu azim bi mu salaatu waa teg ci salli ala sayidi sil miraaji sallim ala si sari wal minhaaji wa alihi wa sahbihi almuntaqibin الراكعين الساجدين المحتدين سلم على سسر والمنعاج سلم على سسره والمنعاج الراكعين الساجدين المحتدين سلم على سيسر والمنعاج الراكعين الساجدين المعتدين أماته الذين قبلنا يا ربنا بالفضل ولا تواخصا لنا بالعدل كما درج من تباقي له ويرج إلى الأباق أراه راب العرش ما يرضاه كوامل أنوار ما يخشاه وبرسولك الذي أمي صل عليه سافح المدي هدى بشير ومباشر نظير وطاهر مطهر بدر منير طاشر واقب ومختفي منج ونان مصاخب أجب لنا بجاه بابك العظيم عين النهيم والصراط المستقيم أجب لنا بجاه بابك العظيم عين النهيم والصراط المستقيم أجب لنا بجاه بابك العظيم عين النيم والصراط المستقيم لطف يا مخطفات مم أردا لنا كسى المراد عيسى عرضا للمقاف سيدي ساداتي سل وسال واسع الإباب صنعنا الوصل يا رب الفلاح فنجي مولاي من شر الخلق حكم يرتب الأروف من صلاة الفاتح دعاء قمي معتمدا بعونك الكريم وتمام المنظوم صل على سيد المهراج على الشهر والمنهاج وآله وسبي منتقبين أراكين الساجدين المقتدين وآله وسبي منتقبين أراكين الساجدين المقتدين صلاة الفاتح نتيون صلي على سيدنا محمد الفاتح القاتم لما سبق ناصر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حمد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أعلم والقاتم لما سبق نصيبك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حمد العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق نصيبك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على العالمين والحمد لله رب العالمين ah tabaarakallaahu yaakaar naa ni de li de ko mus dalul sa xel nag xaw ma lan mooy dal sa xel hmm? yal na yàlla dolli sutura si ne am na nag ay tikke barkeelu yoo xam ni duudu daf ko defaroon waaye jotul sotti waaye incha allahu taala fileeg altine danañu ko tasaare ci wàllu yëpp jàmm gën ak ne ndomba alarbaak moom daal waalo gépp incha allahu taala danañ ci jot barkeelu la nag ne sëñ Faratal nag li mu wax tabaarakallaa ñu kii ciy rafetlu di ko gërëm bu baax. ak Ousmane ak Ablaye. ak doomu imam bi. li ñu wax di wax yu rafet a rafet. boo gisee ñu tudde ko zawiya Cheikh Al boo gisee fii nag ñu tuddee ko zawiya Seydi Al Hadj Malick radiyallahu anhu. dafa mel ne nga dafa mel ni rek nga ne masjidu rasul. bi moomu ko. yonent bi moomu ko. yàlla moo ko moom. waaye kéem dañuy boole xaqiqa ak sharia. waaye nag xaqiqa ak sharia dañuy boole. te ne fii moom place la boo xam ne nag place bu ñuy fàttali ko la bu jar a bàyyi xel la it. waxuma place su nangu ñaan rek. ne fii place su texe la de. nee béréb bii dana xati. ne nit dana bàyyi ko fu ne. ñëw ci place bii di fi ñaan si. kon. nañ ko waajal nee na duudu daal li ma bëgg ñu toftal ci lii nañ fi tabax benn kër tudde ko wàccuwaayu Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu nee ku fi ñëwee rek man fa dal tabax nag benn euh, franco arab fii boo xam ne xale yi danañ fa sàkkoo xam-xam loolu daal la amoon ci lu mu leen di wax nee li ci des nag mooy ndomb benn bopp la kenn mënu ko xar kenn mënu ko xar ñaar eh, gis nga gis nga nee gis nga yaraax affaire problème jumelage ak bureau nee wàllu affaire jumelage ak affaire bureau fédéral amu fa mag ñi dañu uuf xale yi mag ñi yi amuñu benn différence mooy mooy quartier bi nga xam ne. mooy quartier bi nga xam ne. bés bu jot bés bu nekk. am na ko ay ko am na ko ay daayira. nee naa Mansour lii mooy lii mooy lii mooy daayira. ne mu ne Mansour nag kon lii mooy daayira. yi ci des yëpp. yi ci des yëpp. ay fans club lañu rek ay fans club lañu rek. ne fans club nag bokkul ak programme mu daayira. waaye nii yaraax di tourné. waaye yaraax moom ni ñuy tourné. yaraax montagne. yaraax montagne. yaraax képp yaraax tefes yaraax table ferraille ku nekk boo ayee ñeneen ñëpp ñëw wuyu si la. dañu am ay pépinière de chanteur wax naa école de bu ñu koy sàkk. nee na nee na xale yi bu ñu leen di sampa pour ñu mën a jàng way bi nekk xaleel. yaraax classe d'âge bu nekk. nee na yaraax moom classe d'âge bu nekk. mën nañu mën nañu mokkal nañu xaside kër gi. mokkal nañu xaside kër gi yëpp. barke démb rek bi ma bi ma fa sëñ bi yebalee ci benn dëj bu amoon foofu. maa ngi koy wax Ibrahima ba ñoom man leen sëriñ ba ñoom ñii tey di taxawee ay gàmmu bi ñu sëriñ Moustapha di yebal fii ci yaraax ñu daan fekk si eh, Ibrahima ba mii jamono booba ñoom sëriñ ñu tuut ay xale yu tuut lañu booba dañ daan def ajjuma bu ziar bi jeex ziyaaru ajjuma su jeexee man ak ñoom Moussa ñag ñu continuer dem. yaraax kër Ibrahima Ba bu ñu demee Ibrahima Ba am ci taxawaay bu mat sëkk moom ak góor gi Modou Kane ñu dem di luqati xale yi di leen indi ñu toog ci gannaaw ba yàgg ñu dugg ci biir ba léegi ñuy jiite ay gàmm ah ah ba léegi ñuy taxawee ay gàmm nag ba bët set ah, loolu loolu nag kooku kooku nag boo seetee yaraax rek la am. ndax si ndigalal papa la sa pap moo joxe loolu. keroog bu muy wax Sidi Ahmed boobu mu ngi hydraulique mu ni ko ñëwul yaay jiite mbir yi booba mi ngi hydraulique mu yawal ko fii si waalo wallahi ñu dox waalo yëpp et mu ni da fi taxawal alaaji Mansour ba ba lay ñëw kii nag la yàlla def góor gi lu mu masaan soxla si alaaji Mansour bu mu nekkee orop moom moo ko daan bind wax ko Serigne Cheikh moom daan nafa dem mais Serigne Abdou moom moo doon bras droit ak maam As Serigne Moustapha kon si comme ni ñu ko waxee rek dëkk bi seen dëkk la nu ko sàñ gi di waxee dëkku Serigne Moustapha la dëkk bi seen dëkk la et dëkku El Hadj Mansour la dëkku Serigne Cheikh la dëkku Serigne Abdou la dama bëgg nag leeral nit ñi ñu xam ni am na loo xam ne mi ngi si taalibe yi si kanamu Serigne Abdou laa koy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkatul sëriñ Cheikh naa Ahmed Tidiane Chérif ba sëriñ Babacar ba sëriñ Moustapha mi mujj bàmmeel du jëkkër du jabar du sëriñ ñii ñooy sunu wasila ñoom la ñu yàlla teg comme nu ko Sidi Ahmed waxe malade mi moo di mboob mi nga lekk Tiwaawan fa la ñoo naane ji faas nag moom lu tëdd ji foofu la allah jég ngi nekk kon na wér ndoom ba nag lu sëriñ Moustapha defal si yàlla na leen yàlla fay sa papa dafa fayte ndomba bu mu jeex tàkk lii amul dëkk bu mu amul te sandro ko kon ñu ngi jaare ñëpp boo demee jaarel nu sa pap euh, cheikh euh, ab abazi ah nga jaarel nu Serigne Mbaye ñàkk caaxaan wax dëgg yàlla ñu ngi xam naa in sa initiative lu mu fi xalaat ak lu mu fi yéene kii même waa Maroc wala feneen mën na ko ndax moom département la dafay liggéey mu ngi office poste télécommunication bis bu nekk mu ngi si voyage kon yal na yàlla jàppale nu si dëkk bi nag mangoŋ si sa loxo boo demee ziareel nu sa mag ziareel nu sa pap Cheikh nu ma la ko waxee woon ñu gën ñaan ñaan ngeen sax waaw El Amin Al Amin daf na taxawaay bu rafet ci jàkk ji nee na papaam Abdal Aziz Al Amin def na taxawaay bu rafet ci jàkk ji ne dem nañu seeti ko àndanteeg chef de village bi ak góor gi Pap Nderi ak Duudu ne mu dalal leen waxtaan ak ñoom bi ñu ko wanee nag plan jàkk ji dafa ni xaaral dugg ci biir yëkkati deux cent mille francs ni kii sama participation bopp la ne duudu defalu ko boppam ñun ñii la ko defal ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaay bi nag te tabaarakallaahu yàlla baax na yàlla na yàlla nangu ne dafa mel ne waxtu bi mi ngi jege si nag ah, ne li duuf ci nag bi daal xëju ci cin li man nag dama dama yaakaar ni mel ni wax dëgg yàlla daal ko ko ko ko ko sant mbooj rek di ko def xanaa ko sant faal bokku ci ah? ah man daal man daal dama bëggoon daal ñu ñu fexe tabax jàkk joxe ko sant Faal moo ko tabax ah? ne ñu ngi sant nag Ablaye Sène nee na Ablaye Sène moo jaar fii tabaarakallaahu est-ce que tabaarakallaahu ñaan ci ba ah waaw non benn la yàlla baax na incha allah <coughs> won rek li allah ñu amin ya rabbal alamin amin amin amin gi mu ne waxtu wi jot na nag xanaa eh, dema julli ji dafa bëgg mu ñaar ka xam naa dafa bëgg mu ñaar ka xam naa